kon nag mbokk yi mbir mi fii la minal xadimi ilal xadimi TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kay sëñ Babacar loo ñu ngi leen di ziare bu baax a baax euh, di am mbég bu baax a baax ci leeral yi ma dégg nga indi ko ci euh, waxtaan wi ñu doon def démb kàddu yi fa jub ci nangam am na nangam amul waaw adduna nay lu ñu ci lu ñu mënta waxtaan amul waaw ci lu ñu mënta waxtaan amul ndax. lu ci mën a doon dañ koy waxtaanee rek euh, dégg naa bu baax leeral yiñ ci biiral wax dëgg yàlla euh, mu rafet lool ndax yow maanaam fi nga ci waxee mooy rek comme moom ab sëriñub daara la moom sëñ Modou Asta mënoon na ko xëy na joyante ci joyante bu gën a rafet ne ko nangam amul waaye nangam a am waaw loolu loolu xëy na kii waaye xam naa ni sëñ Modou Asta itam am na teggin yu tax mu mënoon ko defee ni sax waaye xam nga léeg-léeg. ku nekk mën nga koo jël misaal ci sa bopp xam nga boo amee tey sa doom joo xamante ne wala sa sa ndongob daara ci ci sa daara nga doon sëriñ daara am ndongob daara euh, boo ci amee ndongo boo xam ne correct na maanaam yem na mel ni mu mel daal ami teggin lool kooku di nga dem ba même bu fekkente ne def na yenn njuumte tey sax doo ko bëgg ñàkke teggin di ko joyanti ci anam yenn yu kii daal waaw ndax ndax ndax ndax ndax lim la ji ci ci ci lim la ji ci teggin ak i teraanga ak yar bi mu la wan loolooy tax waaw waaye boo amee ndongo boo xamante ni moom dafa safaanoo mel noo xamante ni daal kenn wax dëgg yàlla kenn bëggul dongo bu ni mel euh, réew la mañ tekki dina dem ba bu juumee yenn juum yi pour nga joyanti ko daanaka boo koy joyanti joyanti jippi nga koy joyanti xam na sëñ Mout Asta mel na ne loolu moo ko dal ci Mamadou Lamine moomu mu seqaloon jotaay bi ci Walf Grand Place ndax Mamadou Lamine nit dafa def nit koo xam ne dafa dëgër bopp benn ñaareel bi dëgëru fi tekki ñetteel bi ñàkki teggin aussi. waaw ñett yooyu moom gis naa ko te mën naa koo kii ndax dëgg-dëgg pratiqué naa ko daam ndax jëflante nañ te lim ci wane ci plateau bi loolu la wax dëgg yàlla li ma gis ci moom ku xool gis ko ci moom ci waxtaan bi ndax man mi sax boo seet ci jeexitalu waxtu ji maa ngi koy përëf përëfee bañ mu mu mu mu mu kii naan ko jeex na jeex na nangam nangam di di di teg ci sama bakkan nag ci jamono jooju parce que boobu li mu bëggoon maa ngi dégg mu wax ci suuf daan waaye yéen da ngeen a bëgg lu yomb ay sëriñ rek nangam nii boobu mi ngi bëggoon a def ay attaque jëm ci ne daal ñooñu ay toog muy dox ak yooyu daal ni ko bëggoon a kii ma daal di lank gar ci sama bakkan <coughs> jëflanteeg moom ci façon boo xam sax man bëriwul lu ma koy def ci samay plateau ndax du may faral di xëccoo daal ndax damaa jàpp ne lu mu ci mën a doon mën nañ ko waxtaanee ci ci ay yara ki teggin waaye xëccoo ki toroxalante yooyu moom man bi sax dama cee nekkul yàlla xam na ko waaw waaye fin bi dama cee xar sama kii parce que xam naa ne ñàkk teggin gi bëgg na ñàkk teggin sëñ bi accéléré ko dox ci kawam wan ko ne ko yéen daal da ngeen di toog muy dox ak nangam nangam ndax xam nga Sénégal dafa demee noo xamante ne yàlla seede na ne yàpp nañ mbàkke mbàkke gi mbàkke mbàkke yi ak sëriñ yi ci ci ak umpale waaw moo tax ñu yab leen ndax da gis koo xam ne nii moom yaakaar na ne sëriñ yëpp daal seen liggéey mooy toog di laaj rek wala toog di nangam wala di trian wala di nangam wala di toog di kii fekk bari na ci ay sëriñ yoo xam ne li ñu yor ci ay tool buñ la ko waxoon doo ko gëm bari na ci ñoo xam ne ñi ñu jàmbaaree ak ni ñu mel ci réew mi wax dëgg yàlla li ñuy dimbali ci nit boo buñ ko waxoon doo ko gëm waaw damay koy natt ci sama bopp di wax ne bët bu set rek man mii ci sama bopp daanaka ku mu neex man ngaa weddi sëriñ waaye man Pape Maguette du ma ko weddi li ta ko mooy dama am sama sang suñu Abdou Aziz Abou Madiane Abdou Waay Mbël waa guy bi dañuy jëflante lu rafet ba bi may ngénte saab taaw jëndal maw nag defal ma lépp jët ma xaalis bu bare bari ba may takk soxna it mu defee ko ni dama taxaw ci lépp ma tuddee ko saab taaw it mu dikkit sagal ma ba fa ma dëkk jóge guy mbind ba Dakar yooyu yëpp di ay jëf yoo xam ne kon sëriñ moom comme neex weddi ko waaye xam nga dëgg ci am ñoo xam ne seen yéene yëpp mooy fu ñu toog njëkk tegit ab sëriñ wane ne sëriñ yi ay bëgg lu yomb lañ duñu dara ñu nangam loolu nag moom mooy li nga xam ne dëgg-dëgg ñun suñu gëm-gëm ak suñu tolluwaay dañ dul ñu di ko nangu daal dëgg la du du du ñu ñuy tuddee ay sëriñ ñëpp a baax am na ci ñoo xam ne nii xëy na seen jëf mat na seet wala gën a rafetal waaye bu mu tax nag ñu bëgg profito di egg léeg-léeg ay kilifa foo xamante ne nii daal mën na ñàkk daal waaw bi ci desit mooy li taxoon nag mooy wax ji dëgg dëgg dëgg li ko waral muy sóoraat sàngam am na sóoraat nangam amul ndax moom dafa wax ci biir wax ji xam naa ne bu du ñàkk sëñ Babacar moomu dina dugal ab vidéo bi bi muy waranteeg loolu ci dëgg dëgg dëgg ci am na ko ko TikTok bu ko dugalee daañ ko mën a mën a mën a di ngeen ci mën a gën a mën a am dégg ah ci li wax ak li ko sëñ bi tontu ndax dane oh, maanaam yàlla dafa bëgg dëgg bu tuddee ko ah, ab saar muy muy muy suratul xaq waaw loolu it ku ne xam na ne sóoraat bu tudd soratul xaq moom dëgg-dëgg moom amut ci ci ni mu ko waxee moom ci ni ko waxee ba pare sëñ bi daal ko al al alxaariya moo am mu ne waaw alxaariya man ba a sukkandiku ci loolu sëriñ bi ne ko sëñ Modou ne ko alxaariya moom te alxaariya boobu ci boppam dëgg mi ngi tekki ay maanaam ay fas yu rëppatal nangam am na lu ko ci daal parce que xaariya moom xam naa ne dana dana tekki bruit mën naa tekki comme boo demee ci li ñuy wax fracas ci baatu tubaab fraka Euh, mu kii waaye itam boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko seetloo après ci la ci la ci demaat ba yàgg mu mu dugg ci beneen kii maanaam ay euh, sorat 69 boobu muy xaqatu ci bob moom waxul xaqatu waaye waaye surtout xaq la wax ba pare moom li ko dal yëpp boo yaboo ne moo ko yóbbee boppam ndax dëgër fit ak soq moo ko ci yóbbu ndax mënoon naa rek jàmm ca werante ca la mu xam ndax man ba ma wax naa ko sax ci bi ne ko man fii du émission bi du émission nangam nangam nangam andiw ñu waaye moom moo dëgër bopp xuus ca loolu rek te xam nga bi mu njëkkee wax sax bu ngeen seetloo ne suurat saar yàlla bu bëgg dëgg ba tuddee ko suratul ba tuddee ko aw saar suratul xàq loolu it ba mu ko njëkkee wax sëñ moo assa indiw ci benn leeral da koo bàyyi rek continuer wéy bi ñu demee nag ba ci biir émission bi ci la waxaat ci la jëlaat exemple daal ne waaw waaw tey jii Ousmane Sonko képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom euh, l'islam euh, daan na la ndax koo xam ne l'islam da koo rey seetal jooju wax rek bëgg indi baat daal di indi lu am lu mu wax ci Laxdari man sax xamatuma fu mu toll waaye ba mu ko wax di sëñ bi da ko ne déet loolu ko firee noonu du noonu mu wax sëñ bi ko waxal bi ko sëñ bi nag foofu ci ne ko kenn du ko firee noonu nangam ak nangam ci la nag waa ji daal di tartari daal xamatul fu mu war a taxaw mu dëgër bopp daan waaw léegi sax li ñuy def mooy waa kon léegi bàyyi la ma wax ngay may wax ngay firi ma ne déet sëñ bi déet yow bul firi bàyyi ko moom ci boppam mu wax firi firi néew boo paree daal di a firi nu bopp ñu seet sëñ bi daal ne waaw kay nag waaw kay waaw kay yow waxal firi mu ne déet sëñ damay wax ngay firi sëñ bi bu boobaa da ngay langaamu man loolu du ko def du firi firi la sa bopp <laughs> ah boobu it man maa man maa jàppale sëñ bi lànk pour sëñ bi bañ a firi sëñ bi tam daal di dégg fa ma waxee ànd man sëñ bi nag ci la ko waxee ne ko man ba nga waxee sànq ne sóoratul xaq am na ci laa njëkk a xam ne jàngoo xamoo saar wu tudd sóoratul xaq ci alxuraan mu nekk ci dëgër bopp naan mbàkke xoolaatal téere yi nangam nangam amul di wax ba wax ji soofee nag ba xaw a soof ba kii ngeen baal ma ci laa mën itam intervenir daat ko ne saa yi mun naa ma ne ko dañu waxante dëgg nag Lamine mais yow koo doon ba bëgg a jël ci alxuraan dugal ci lu ci amul ndax alxuraan moom téeméeri euh, saar rek fukk ak ñeent dong la 114 ay képp 114 saar nga bëgg cee dugal kon dégg nga aw saar woo xam ne nii moom wàccu ci mun naa ma ne ko loolu nekk mun na ma yow itam koo doon ba bëgg ci alxuraan lu ci am. maanaam nit la koo xam ne bu yéegoon ci kaw garab ni ko sama yaay di faral di waxee euh, xawwee ko war a daanu jàppoon ca branche ya bu demee ba xam ne branche yi moom bu sax mënatu koo téye dana ko jaral langaamu ca xob ya donte xam na ne xob yi moom mënu koo téye waaw waaye moom bi mu jëlee alxaariya xaariya bëgg koo siri ci ay dëgg ak yooyu rek ak yeneen ak naan yàlla dafa bëgg dëgg mu tuddee ko saar indi ak kii bi mu indi rek ngay xam ne kii moom li muy wax maanaam xamu ci dara raba dara boole ji <laughs> waaye lu mën a doon daal ñu ngi koy jéggalu baax ndax xam nga dëgg-dëgg waxukaay moom di ci indi ku am ku xam ci li muy wax am na ci solo waaw ñun itam ni mu ñëwee ci ñun rek xëy na erreur la daal erreur la boo xam ne nii dootuñu gaaw a dal daal ñu koy jéggalu baax di ko tub waaw ndax alxuraan moom lenn lu ci nit yàq lu mu néew néew rek mel na ne itam dëgg-dëgg mat nay jégalu daal ndax maanaam alxuraan moom Sénégal dañ koo bëgg loolu am fuñ ko teg am nu mel loolu ci réew mi ba nga xam ne daal bu ko fi nit yàqee rek day daal di tooñ ñu bari waaw te itam nag xam nga alxuraan moom bu fekkente ne da nga koo jàng yam ci jàng ko képp bokkul ki nga xam ne da koo jàng ba pare bind ko beqi ko sonn ci da ci lu nekk dëgg dëgg beeg si ci fi egsi kooku moom mënta bokk koo xam ne tey moom bi émission bi jeexee sax mi ngi wax naan man ay franco arab laa jàng ak nangama ki yu demee nangama yooyu daal te bi ñu paree bi émission bi jeexee rek man ànd naa ak moom ba di wër Oustaz Assane après ginnaaw gi ñu ma tasee Oustaz ne ko waaye Oustaz man damaa bëgg nga dimbali ma saar bu tudd suratul xaq ndax dañ a dégg mu ne ma saar bu tudd suratul xaq xaq ah loolu day dëgg dëgg mosuma ko dégg man sam jàng day ba jàng naa day jàng naa loolu ba univers nekk universitaire te Oustaz Assane moom fi mu ne nii doctoral am la waaye dëgg dëgg suratul xaq moom kooku moom waaw xëy na nag moom la mu a wax la mënta wax wala làmmiñam setul ba ko wax waaye loolu waaw ah, kon daal moom mbir maa ngoog ngi ciy tuub bu baax xam na audio bi gudd na waaye sëñ Babacar moom macha allah sëñ jëwriñ la ñu leeral rek bu ko defee jaaree ko ci moom ñu nit ñu xam position bi ñu ci taxawee woon rek waaw ah, kay ñu ngi koy tub bu baax guddal gi jërë ngeen jëf. kon nag mbokk yi mbir mi fii la minal xadimi ilal xadimi jëf.